dama jug di sant ki may salaam te mooy rabbana buur bi tuddu salaam dama mooy rabbana buur bi tuddu salaam allahu di buur yàlla mi doon salaam خير خلقه صلاة السلام دكان صلاة دكان سلام جخدنجي يمن عليه سلام كوغمي الله تم سنگ بي ام سلام جبور الله بور بيت رمدي سلام يمن مملا بور يلا ميلوي سلام Ramadan yërmande may na jàmm ak salaam. waaw. ah muy toog. jag ci biir këram. waaw. yaa ngi bëgg. amoon na papa. waaw li ma la bëgg a wax benn nouvelle bu nekk. sa yëre korite maa wàññi. waaye du tere da nga dem sa kër yooyu bàyyi ko yow. Ah, ma ko bàyyi de. di sa yére julli. man du ma ko sot wóolu. li fi def bi keroog rek. mën nga ko def def wala. jàll xam nga maa ko la damaa xotti yére ma sol ko. génn dem si mbedd mi ñu futti ma nangu. te fekk moomoo. loolu du ci am. yow kay xam nga li ko war a maam nga jox. sama doom du sàcc. ah très bien. doomu sàcc waaye li mu fi def keroog moo xantam boobu nga xam ne day. léegi day dox du weer. yaay si ban si ban yaay si ban. yow da ngaa xaar koo fi dox la. ki doon xaar mën na koo kii. grand frère. mooy mooy mooy yaa ñëwaat. waaw disons maa ngi nii de. maanaam day dindi moom sax. yow xanaa amu leen kër. yow del toog seen kër di ko ndogoo yow. yow xaru lekk rek nga xam. dafa naan dafa naan nga naan ay ay ay laajumaal. non da ngaa ñëw. may leen ko may leen ko may leen ko. mais bul naan palaat bi yow kay dafa li nga def ak ay palaat. waaw doo déglu kii. man tey reer dama fi indi yow di nga xam tey yow kan ngay. xas wala ay dara. waa car la. car lu la sa jabar ji ka yaakaar dala bëgg bëggu la xaalis la la toppee. waaw dama kaa fekk mu ànd ak benn góor. waaw taxaw ak góor. lii bettu ma. da ngi nii moom lii bettu ma. bon la. moom la mi ngi nii. moo laa yem mi ngi nii. sañu fa la yow. sa xaalis bépp la roñ di ko jox góor yàlla. papa moom la juróom nga koy xool. moom la jum naa ko man kay gëmbal ma loo ko gumba. amaana te mu ne du teew ñuy nataal. fen de mu euh, téléphone de moom du fen moom. lii dama doon génn kii dajal moom. yow yaa mën a fen. te vaccin bi vaccin la de moom la soloon démb. ba bay génn ci bunt. nekk nekk lu mu jënd xàmmee na ko. vaccin bi sama xaalis la jàmm naa eh, ko jënd. ma ne nga téye sa loxo ba nit ñi pare. kuy naan di nëbb boo mën nay feeñ. xanaa kooku yéen Eh. ak yow fi ma la jël. ñu joxe information bi fi ma la jël indi la ci kër ah. def la nii nga mel tey looy def lii nga may faye waaw papa. papa eh, fekk ma ci biir yow. waaw ah, papa reer bi nag.